xaar ba kenn tudd ma mais nii ñëppay dandu wuy ma xam nga dandu wuy ma mm-hmm. eh dandu koo yaakaaroon ni moo gën a jege xulil mm-hmm. koo yaakaaroon ni moo gën a jege président fi nii xulil mm-hmm. wuy ma day jaar ne mu jaar ne du du ko dand fenn yow mën ngaa yëg lu ma yëgul ci sama parti bi maa na xaaral ma eh, tuuti nii kay xam nga moom xeex bi fekk fi woon xeex beeg pëccaxoo beeg sànnante chaise bi xam nga fekk fi woon. waaw te ñi ñu ko jaxaseloon. ñi ñu ko ak Mbaye Ndiaye ñi mu dóor non ñi ko jaxaseloon. Hmm. mu wax ko fii président Sall il a compris ñi ñu ko jaxaseeloon maanaam xam nga léegi li nga am am boo xam ne ñoo lay jaxaseeg ñëpp ña ñu ko jaxaseloon ne bu yeboo ngeen xam ne uy ma eh, eh, hmm. eh, maa la wax ak aw juboo dana am incha allah. ña mu jotee loolu ñëpp lay jubóol jàmm réew mi jàmm rek. jàmm fan yii de wax dëgg yàlla seytaane toog na. jàpp ñàmburam nag. jàmm rek loolooy dëgg xanaa xamoo. man damaa gëm xam nga xam nga xeex bi rek Baye Assane xam nga xeex bi fekk ko fi woon bi muy bi muy wàcc ñibbisi ñëw. waaw xam nga premier ministre daf koy teeru. waaw téye ci loxo bi xam nga lu mu ko njëkk a wax. ma wax la ko la mu bàyyi ko. lu mu ko wax. doon xeex. <laughs> ah la ko wax. dëgg yàlla mu mel ni ma tukki bàyyi samay doom ci kër gi rek ñuy ñu xiidoo ko ñaayoo ñaaw na nag non man kay xam naa ne. ñii di mbéjaate ñii di gàddaate moom wóor na ma dina ne dina ne wóor na ma ne président bi dana woo Mbaye Ndiaye ne ko sunu baay bi ne ko xulli. waa mais mm-hmm. yow Mbaye eh, dóore nii ci télé bi nii ñëpp di la gis nii dóore noonu. muy ngàdde bay bàyyi bay bàyyi dóore. <laughs> yàlla na yàlla doole sutura. Eh, yow d'accord nga avec les. vent plein de la gouvernance yëpp mais yow Nabou Cor ça fait quoi ça fait 2012 ba tey ñu ngi wax la même chose mm -hmm. les c'est c'est et c'est dommage il y a eu beaucoup de scandales beaucoup xam nga li ñuy wax fausse route mm-hmm. dañu jàdd yoon bi nekk ci leneen nekk ci leneen je je donne un exemple oui allez on dit tout le temps dañuy dégg oui di président bi liggéey kenn liggéeyu ko fi président bi liggéey bi liggéey <coughs> mais nabu ko su fekkee sa taux de chômage dafa am fu mu tolloon au temps bi Ablaye Wade di dem te Wade bi muy dem Sénégalais yi mere nañ ko mere koo xam ne imaginel imaginel ñu mere Ablaye waat ba muy dem yàlla di def ñu dem bay rëccu Ablaye Wade kon musiba am na kon c'est pire. Mm-hmm. kon kon koor affaire bi garaaw na. te dañu dem ba rëccu man mii taxaw naa ci télé seen TV ne hey maa bokkoon ci ñi doon rey seen bopp pour Ablaye dem mais rëccu na ma ko maa ko wax ndax situation bu ñuy dund. waxoon nga lool waaw bu inédite bu ñuy dund maanaam Sénégal egg ci benn bi Sénégal war naa egg foo xam ni dañ naan ñii ñooy bokk ñii duñu bokk xulli te bu njëkk ñu daan yem ca indépendant ya donc dix mille euh, signature baa ko amee bokk. Mhm. baa ko amul doo bokk. tey ñu ñëw fekk des candidats légalement constitués ñu ne leen du ngeen bokk parce que ki kii organisé bëggul ngeen bokk ñu ut lay ut yoon teg ba écarté saay loolu baaxul bu dee bilan moom parce que bu Nabucor ku gérer plus de quarante mille milliards ci dix ans onze ans douze ans soo deful kuy def hmm. donc c'est normal qu'il qu'il se passe quelque chose mais le problème sur mille choses les neuf cent virgule nangam baaxul xoolal inondation bi ci Touba ban taw boo fi taw Sénégal ba ba nuy dund lii Touba. Mhm. kon xanaa bu taw bi normale musiba mooy am. te am na ku ma liir ci euh, commentaire yi léegi mu ne Touba mu ngi tawat <laughs> doy na waar. dafa mel ni sax léegi nii gis naa mu ngi xind Ndakaaru moom fu ne nii moom bu yeboo rendez-vous yeeg yëpp ñu pare. te nit ñi ne ko fi sottee moom si fini. doy na war naa toll foofu. te ñu ne def nañ sept cent soixante milliards wala lu teg wala lu ko jege. ci ci xaalis ci inondation Sénégal. mbaadu ñoom lañ ca defa tax xaalis bi ñu sànni ci. lak rose bi tax rosatul mu far vert. 760 hmm? milliards yi mbaadu moo tax lak bi rosatul daal di vert. ah ils avaient en dix ans c'est-à-dire fii moi je me demande nguur bi war a ñëw prochain mhm. régime. prochain mhm. gouvernement. Mhm. bàyyi waxal ci sa micro s'il vous plaît. gouvernement bi ñëw. incha allah. man hmm, daf man dama takk micro cravate li ma wax mu ngay génn walla génn mbay mu ngay génn micro de la ma takk wax dëgg yàlla ah baax na yéen micro cravate la takk nag wax dëgg yàlla de leen dégg ba baa leen ngeen def ba pare beneen bi yow xam nga ni du sept cent et quelques milliards rek des na ah ban la plan décennal bi bi ñu génn jamono ji euh, ci ci ci nawet bi ñu génn ñaata milliards lañ ci def xam nga xam nga xam nga plan plan décennal bi ils avaient cent cinquante milliards au début. Mhm. après ñu ne mhm. teg na ci xaw ma la ni coow li du loolu koor xam nga lan moo la coow li. Mhm. dama jàpp ni euh, li ma yaakaar li gën a sonal président Macky Sall wax nañ ko fi keroog. nee baax na tu peux parler. li gën a yàqal président ci li ma jàpp. mooy la mooy li sunu kilifa bi wax Abdou Aziz Diop daf ko yéex a wax na waaye wax na ko. Mhm. pexe pexe pexe. bi mu ko naan Macky Sall bàyyi pexe Macky Sall bàyyi pexe Macky mhm. nag amaana na ma yàlla baal na nu kilifa yi baal kilifa yi baal leen nu de ñu ngi leen di kii baal leen nu de vraiment waaye la réalité c'est cela. Mhm. le régime du président Macky Sall a passé énormément de temps xam nga ci lan. ci lan comme comme ñu ne ci mbedd comme ni nit ñi dundee ci mbedd mi noonu le régime bi dundee. Mhm. maanaam nabu ko mais dégg naa mooy moo dëkk fii kii ah non non non il faut ko il faut le régler ah non non non ñii bu dañuy fontoo. changer tour bi ñu yoree état bi bu ñu kenn kii. changer tour bi. Euh, Ndeye Mbaye Samb. c'est mieux. Mbaye Samb. wala ñi ah Pape Alé Pape Alé Niang journal mais ce gosse là mais kii mais non non non mais il faut il faut qu'il arrête xulil lu rey président Macky Sall loolu ci la bokk xam nga lan mhm. les petites courettes wuy ma kër diw ak diw kër diw ak diw bu ñu fa toogee ba deux heures du matin trois heures di jëw di jëw rek mhm. te war a xëy nekk seen bureau yi donc le lendemain ils sont pas au bureau la yàlla xam doy na ba mu neex leen ñu jaar kii oui dama war a gisee président la xam nga président ma kii non xam nga dañ suñu kii yi laa nekk ci xam nga lan. nekk ci ci ci nii maanaam nga nekk ci dara mel ni ku ci nekk nekkalu c'est comme ça que ce régime là a géré ce pays malheureusement neexut a dégg nag parce que ñoom ils diront qu'ils ont super travaillé le travail. ça ne se juge pas ci oui je suis au bureau à six heures du matin je quitte chez moi le bureau à vingt-trois heures oui je m'occupe de parce que ce dont vous vous occupez su nekkul ci priorisation ordonnée doo sotti xam nga lu moo jur. ngeen di xëy di dem di dikk. ah président dafa dem Fatick ah oui oui damay dem repérage là xoolil ah directeur de cabinet bi dem na mu dem Fatick def fa deux jours trois jours ah oui monsieur le président dem naa fa vraiment la mobilisation est forte les gars vraiment gars yi moom ñëpp ngi mais c'est terrible. alors que niveau bi dafa war a kawe. dafa war a kawe. daay daay la surtout surtout ci débat yi boo ci demee da ngay dem ba à un moment donné euh, du ñu amati argument. dañuy oh. dañuy mujj di boudé wala ñuy daw plateau yi. exactement je vais donner la 2STV. wala di mer dañuy dañ tout le temps pour ñu mën a ñëw ci suñuy plateau ñu waxtaan ak ñoom mais dañuy bañ dañuy jàpp comme des opposants wala seeni noonu te warul woon demee noonu. da ngay ñëw toog ñu boole laak nit mu am débat d'idée confrontation ngeen waxtaan teg ko ci xel ak li nga xamante ne mu am ngeen ko comme bilan et de base euh, ñu euh, dañuy dañuy fàttali gis nga sénégalais yi. du du dañu bañ le président Macky Sall bañu ñu ko dafa am loo xamante ne ci ci sous son magistère la xewee. Mhm. te d'accorduñ ci. Mhm. léegi le fait que ñuy dénoncer loolu dafay dafay dafay ñoom da mën naa ni frustration lay jur ci ñoom te warul woon jur loolu ci frustration ci ñoom dafa waroon fexe de telle sorte que ñoom li leen nit ñi di wax. ñu jol ko positivement et jéem a rectifier parce qu'il ne jamais trop tard pour pour pour pour bien faire rawatina boo amee 12 ans pour euh, mën na daal di diriger lii di dëkk bi am na yoo xamante ne buñ ko doon déglu amaana du ñu yegg si fii. Mm-hmm. léegi nii ci euh, connais Bentaleb euh, Sow. de Sow non samedi oui. oui, moo doon kii doon nekk ak Ousmane Sonko président Sonko di ko filmer ak yooyu te ñu jàppoon ko fi bàyyiwaat ko. voilà léegi nii laa gis ci publication am nee na il est huit heures zéro zéro et les barrières de la cité Keur ont été complètement levées. waaye yow koor. am nga loo yëg lu ma yëg. waay waay na jàmm yokk. ay ñun bu ñu amul candidat 2024 doon ñi doon jaxase dëkk bi wax wuy ma. seytaan waa ba jiiba yi daanu lëlu ba force. fii àla réew bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam sunu maam xaadimal Moustapha Seydi mm-hmm. Haaj Malick maam Cheikh Omar Foutiou maam Boukounta maam Amary Ndak Amar Jegan Amar Dem Amar Cissé Pire. xulil El Hadji Ibrahima Sakho El Hadji Malick Pouye Aliou Cissé Diamar. Cheikh naa Cheikh Sadou Chérif Waxeet Cheikh naa Cheikh Abou Khadre Jeylaan Cheikh naa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif naa Cheikh Mouhamad Vadal xulil ñi war a bokk ñëppay bokk. Hmm? ki warut a bokk nee na bokkatul. ñeneen ñëppay bokk incha allah. awee noo la ko wax fii. Hmm. ka mu neex ka mu neexul man dialogue la ma gëm waxtaan rek. parce que xam nga lu tax. Mhm. dëgg mooy mujj. eh. Mhm. dëgg moo la mujj. dëgg moo tax président bi génn ci troisième mandat dëgg mooy tax Ousmane Sonko nu waxtaan la situation teg justice injustice jàll xulil awee ah mu bokk. coow li nag mooy bokkee ba bu ñu deful attention moom mun naa rafle mise bi ci lu gaaw. kon ñu ko lenn rek mën a tax mu pet xulil ma waxaat ko fii yàlla bu mu ko dal bu dee gën na ci réew mi yàlla na falu yàlla xam kuy falu eh. lenn rek mën a tax mu bañ a falu. Hmm. faxastalu yàlla bu mu faxastalu. amiin amiin. waaye hmm. moom fi mu ne nii moom jàmm rek incha allah jàmm rek jàmm rek. la ñu bëgg tey nag ci kaw dëgg. xam naa ni ñii ma nekkal nii dëgg yàlla xam naa ni nekkatuñ ci jàmm de am na ñoo xamante ne ñaanuñu woon yàlla barikat yi dañ. waaye day dañ léppay dañ incha allah. Hmm. léppay koor. ay ñun fu ñu jëm deux mille vingt quatre. léppay dañ. normal Sénégal neex jàmm rek jàmm rek te kenn dootu fi xeex xeex moom si fini incha allah. dimbal leenu rek doy na sëkk rek waaw doy na sëkk barke dimbal leenu rek. nanu waxtaan ku jalagul avant di nga jalag après waxtaan ñu régler problème yi avancé xulil xale yi yëpp ki ñu bëgg xale yi dem votel ka jàmm ne ñu avancé léegi nag la war a jaar yoon jaar yoon eh. euh, lobby yi ak ñooñu. ñi nga xam ne daal ñoo ñooy ñu doy waar ñi ñooñu yàlla na yàlla nasaxal yàlla bu ñu am doole. waaw parce que dañuy yàq dëkk. ñooñu di nasa di di ruu ruubee di teg ay plan parce que seen ay intérêt yàlla bu ñu am doole ci dëkk bi. kon nemmeeku tuur bi day day commencé waat. comme lan lan. nemmeeku tuur bi. Ousmane Sonko dana génn def campagne am normal kay ah, ah incha allah soobee yàlla normal. normal Pastef nag ku leen. campagne leen te bu leen tooñ wuy ma campagne leen te bu leen tooñ bu leen gérer kenn nekk leen focus leen comme focus ngeen wax nekk leen ci bu leen kas kenn bu leen ki gérer leen rek yéen yéen a ëpp succès hmm. gérer leen rek bu leen tooñ voilà. man de Baye Assane wax dëgg yàlla man foogoon naa ni ñun gagné nañu élection deux mille vingt quatre yi. ak farba ak farba ngoon. a ngi laa jàppoon waa APR. <laughs> man kay man kay xam naa ne yàqu naa. yéen fi mu ne nii da ngeen de. ah da ngeen wét trop sax. wét nañ tiit nañ. bu dee barricade yi dafa dañ comme ni ñu ko waxee. Eh, jàmm rek wéet nañu waaye tiit nañ de. waaw jàmm rek. ah ku ku def ku def kay doo tiit ku deful kay looy tiit. non non tiituñu ci ci di dañoo tiit xam ne gañe gañe bi la ñuy xalaat du dëgg. gañe ba. Mm. ah du Amadou Ba nee nee na leen euh, Ndakaaru moom bu ñu ko gañewul deuxième tour rek. problème bi mooy est-ce que sax ñoom danañ dem deuxième tour danañ bokk ca ñay dem deuxième tour sax lu mat a lijjantee ngi noonu. Hmm. Hmm. Hmm. waaw ñu dem ci sama seeg yàlla baax na li ci def yàlla na barkeel. ah waaw yéen a yaay nag barrière deñ na focus leen <laughs> focus leen te leen rek. Euh, Cheikh Diop ma vérifié ndax Sonko euh, mu ngi këram. ah xam naa ni bu nekkul woon këram moom Benta Lepp mi wax ni yëg leve nañ barricade yi dina wax ni nekkul këram vraiment mm, te xam naa ni ñàkk jege ko moo tax loolu am ah, xool bi naqari na yàlla baax na. xam nga nag si yàlla na xam nga nag loo xam ne tegul si yoon suñ ko tegee imposé ko su dee dañ. Mhm. wuy ma. Mhm. wuy ma bu dee dañ day jékki-jékki rek dañ parce que tegul si yoon. loolu moo la dëkk teguwul si yoon amul kayit amul dara donc c'est c'est léegi nag bu fekkee day dañ wuy ma mhm. da ngay xëy ñu ne la dañ na mhm. léegi nag xam nga wuy ma eh fan doon waxee mooy lay dindi loolu mhm, wuy ma wuy ma eh xuli fi loolu tax waxtaan baax yaa loo xam da kaa da réglé kenn du xam lan la bu kenn yëg bu kenn xam la la instant bii lay jaglewul rek. instant bi de ni ni ñu jotee nouvelle bi nii am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan waaye fi fii may waxee yow nii jën nañ billet beneen de.